jigenu fatik toute la région pour apporter son soutien au président de la République Macky Sall pour voir également bi nga président Macky Sall ngi pour xol nu ñuy def ba bi li nga coronavirus bari lu ci mel résilience alimentaire bi subvention factures yi lu ci également renforcé à hauteur de 8 milliards 800 800, 2 milliards li nga xam secteur privé pour nous def ba maintenir li nga xam ne emploi yi nga xam moo biir 64 milliards mu jox ko li nga xam mom moy santé bi pour ñu gëna renforcer seen système sanitaire gis ngeen ko conseil des ministres Barké des Ndiaye mu proposé

don benn taku pour ànd président Macky Sall ci lolu bu ñu leen ko waxé rek war ngeen ko gëm lolu bu passé aussi dañoo jël décision né dañuy accompagner président ci initiative bi nga xamné jël nako muy l'annulation de la dette parce que nak Afrique mën naa wax né que tay fi jamono jëm lépp fi lay xewé kon tey président de la république bu jëlé initiative bi ak leadership national international bu mu am dañ ko ci jappalé ñaan la jeunesse africaine les femmes africaines mais également autorités religieuses ak fu waay mën a bokk rek mu jàpp ci loolu pour mu antu leneen li nga xam ne ko wax mooy ñun dañuy encourager président féliciter ko wax ne jigéen ñëpp ñu ngi doon benn pour gën ko jàppale ci li nga xam moom koy liggéey ci Sénégal lu mu ci bëgg ñu ànd ci ak moom fi may mujjee nag mooy coow li ngeen gis ngeen ko ak muy am ci biir parti bi parti bi nak mag ñi bu ñu waxul ndaw ñi dafa jot ñu wax ñun bu ñuy and ak président Macky Sall dafa am ay principe ak ay idéo waye tamit ak idéologie waye wala wala li nga xamanteni aussi mom moy programme bo xamne dafa yëkëti won ni nii bëgg tabaxé Sénégal Sénégal jox ko réew mi 2012 mu def ci lu muccu ayib 2019 ñew ñi ne ko dañ la koy joxaat mu ngi ci defaat lu muccu ayib and ci ak ay gor ànd ceeg ay nit ñoo xamante ne ku ci nekk macha allah dangaa bàyyi sa lépp ne président Macky Sall moo ma yëkkati Sénégal moom ma ci yëkkati ay ndaw ne ci ay jigéen ne ci ay mag nekk ci ay kilifa nekk ci. donc su ñu demee bay gis yoo xamante ne mu ngi xew ci parti bi damay wax ne ko ñoom nañu rus Sénégal nañu rus président Macky Sall nañu rus également ki nga xam ne sax ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi nekk ay mag nekk ay kilifa diina. naam parti politique association la xam nañ ko ku nekk am nga droit wax sa xalaat mais buñ koy wax aussi li ngay naan ma liberté s'arrête la u démarre celle des autres ba tax na ci alliance pour la république dañu war a xam ne que nous l'avons créé dans la douleur président Macky Sall dafa tàmm di ko wax te président lii ñu koy bëgg a dundaloo ci biir parti bi du lu mu méritoo nañ waxante dëgg lii ñu ko bëgg a defloo ci parti bi ñuy gis ne que président Macky Sall parti mu ngay xar mu ngay kii du mu mérité donc ba tax na man daal li may wax ngir yàlla war wa rasulullaay mooy lu ci waay di def na xool démb ak barke démb lam la ji ak la mu seq ak yow waaye tamit lu ci waay di def war nga mën a xool ne ko au delà de la personne du président la république Macky Sall dafa ay institutions yoo xam ñoo ñëw ci réew mi ñun mu sacré ñu war a renforcer loolu buñ ko yokkul waruñu ko wàññi Senghor jaar na fi Abdou Diouf jaar na fi ablaay waat jaar na fi dinañ fi jóge ñeneen dinañ ñëw donc ba tax na politique dara waru cee ñaaw parce que nag loo gis dafa am fu mu jëm ci li may wax foofu rek mooy mag ñi buñ ko waxul comme ni ma ko waxee léegi rek ndaw ñi nañu taxaw wax ko jigéen ñi nañu taxaw wax ko alliance pour la république suñu parti la te duñu nangu liggéey ko ba fii ay yëfu caaxaan di ko yàq man nag li may wax depuis démb ba tey bi ma ko dégloo def ma ñor parce que alliance pour la république mën naa ne bu doon natt kenn ëppalewu ma ci kenn gënu ma cee def ku ci nekk nag ci sa doole tool def nga ko ca kon nag gaal bi buñ ko naree yàq na am ñu taxaw bañ ne gaal boobu kenn du ko yàq ndax Macky Sall nag jiwul waxuma réew mi sax waaye parti bi lu tax ay nit war a mën a taxaw di def naka sa dul noonu na nit ñi gën a dooloo doon benn na nit ñi gën a taxaw xam ne Sénégal moo ñuy seetaan na ñu ñi gën a doon benn aussi xam ne fii ku ci nekk nag lu jur sa wërsëg doo ko jot donc lii laa bëggoon wax ngeen baal ma àq di wax ne alliance pour la république dafa mës a gagné ay élection te lii ñuy wax bu taxé ne que day tax nit ñi gëna décourager président fa mu jëm tay lañu gëna mënta taxaw pour gungé ko jappalé ko pour mu am ndam ci lu mu bëgg li la bëggoon wax ngeen baal ma